Moodu nee leen ma kii yàlla def ko yërëm waaye Moodu yàlla yërmaande ci yonent bi ba ci suuf asamaan si Moodu bàyyil te yi ngay wax <laughs> yàlla sax nit ñi di ko tooñ tamu tere rek moo doon ko ah pour leen yërëm mais de mais yow tam yow Moodu kaay max la Serigne Cheikh leen fii ñu ñëwaat ci thème bi xaaral rek Serigne na wax ne yàlla bu bu bu bu ko sénégalais di jaamu kon perte na Moodu am na ñoo xam ne bus yàlla day wax waaw de waaw Moodu bi doy bis bu ma demee sama jabar bis bu indee butéel sama néeg dégg butéel butéel fas naan ma pour suñu sëy neex ak pour suñu sëy bañ a kii mm. ci bi ngay génn sama kër <laughs> <laughs> galan ko dama lay fase eh. dëgg la a le mot jërëjëf te xamul sax mu jëlee butéel bi wóorul sax butéel bi nga laal ko <laughs> c'est pas ko ko jox on a fait un peu le tour alors yow tey nan nga ko gisee ñi nga xam te ne mooy maraboutage ci couple yeeg yooyu muy ku góor ak ku jigéen non man moom mosuma ko dund man am na fenn foo xam ne tamit man du ma accepté ni kii mën na yàq say wala kii mën na defar sëy man pour man ay sëriñ ak ay nit mu mënuñu yàq say pour man sëy comme ni ko Modou waxee mm-hmm. benn dinaa d'accord ak moom ci yàlla lay jóge su baaxee yàlla la su melee neneen yàllaa ko dogal. man loolu dinaa ko loxo dugg de Abba. loolu sama philosophie la quand même. je ne suis xam nga li dañu gëm dañ la nangu li nga li nga li nga gëm. donc nañ ko nangu yàlla la c'est pas problème bi mooy sëy. waaw ñaan ak ay gàllaajek yooyu yëpp mën na cee bañ a am wàll. bu mm-hmm. fekkee ku ci nekk ci ñaari partisans yi ku ci nekk yaa ngi def li nga xam ni. Mm-hmm. moo la war. Mm-hmm. tey sëy mënoo cee nekk nga bañ a def li la war ba noppi ñu bañ laa faale wala bañ laa yittee nga ni lii yaa mee da jël amul loolu yaa warul yaa yow yaa war a def li nga war a def dama am benn expérience boo xam ne dañ ma ko wax kilifaani ma dafa am benn femme buy sëy mais borom këram faalewu ko nee na mu génn ci kër gi dem wuti kuy ñaan nee na kooku ñaanal ko ne ko boo demee sa sëy dina neex ndax da ko ni am lii ab sunguf la boo demee nga togg ginaar boo ko toggee roofal ginaar gi li sa borom kër bëgg yëpp ginaar gi na am frite na am soos ak bu ñu paree nga defal ko jus yu neex mais balaa nga koy jox mu lekk boo yàkkee ba teg da ngay suy lii nga jox ko bu lekkee ba suur xoolal li mu bëgg yëpp nga defal ko ko raayal bopp bi jëlal ay karité ndox mu tàng diw kii nangam ak sàngam mu géré ko noonu bi mu ko géré noonu trois mois jëkkër ji demul fenn sëy ba neex mu ñëwaat ci paa bi paa bi ne ko du sungufu dara lu ma for fii laa la jël daat la koy jox donc yow yaay xool ni ngay sëyee je pense que say bu ci yoon yëpp awee yoon soxlawul ngay dem di seet sëriñ dëgg eh. Eh. mais léegi nag Aba Aba man looloo ma jaaxal Aba li nga wax yëpp dëgg la de non non euh, non bu ma dëggalal ndax du ma dama ne li wax yëpp dëgg la Aba mais léegi nekkatul sax comme jëkkër ak jabar wala dara dama lay wax man tam yow comme ni nga amee expérience man tam am naa expérience nit tas nañ sëyam te ki ko tas ku bokk ak yaayam moo ko tas mm. carrément ay 2000 ngay fay 3000 non du ma tudd tur. déedéet jaru ko tur ku ma jege la lool sax kii ma nii xam na ko. rakku yaayam moo dem ci sëriñ dëddale ko ak jëkkëram du yow la ñuy laal mais ku góor ka la ñuy laal abaa mu woon la am na. xaptal ko dañ koy xaptal mu woon dafa am te ñu koy def ñeenti téeméer doo ko weesoo ñoom. boo joxee junni nag mooy xaar dañ koy rey ñeenti téeméer non maanaam yàq gën a gaaw defar boobu noonu. waaw fekk nag souvent da ngeen def indi ci benn preuve. ah vraiment c'est important. waaye preuve mënut a weesu nit ki nekk ah, jëkkëram ci jaam ak salaam ba mu mab ko ndoy baan. waaw preuve bu doon preuve la ñuy xool. waaw non kon bu yëpp génnee. lépp leer nekk preuve kon dëkk bi xiyaam dina métti trop. parce que da ngay gis que ñaari femme ñaari nit di sëy sëy ba ndaw sa sëyul normal ou bien waa ci boppam nobul ndaw si des fois ñi am na ci may leen ay jabar yoo xam ne nëbuñu sëy mm-hmm. sëy ba yànq waa wan ko ginnaaw ñu jiñ ko nit te ñu ko jiñ d'accord souvent yooyu day am. day am d'accord ñu ko jiñ ko ko te yow yaa ngi naan ko diw moo ñu ñu liggéey te it doxoo ba gis ko mu lay liggéey yoroo benn preuve palpable boo xam ne mën nga wane ni kii ñu koy jiñ ni moo liggéey liggéey bi. d'accord Ndoye léegi ah, Ndoye damay ñëwaat ci yow ci yow laay des ba léegi. waaw ndaxte vraiment am na ay wax yu fi jot a jóg. Mhm. te loolu xëy na ñun ñu jàng soriwul ba ñu mën ci gindi nit ñi moo tax mhm. tey ñu indi fi euh, Serigne Bara Kebe. ah teg fi pour que mu mën ñu édifier ci lu bari daal Ndoye mais mhm. Ndoye man dama bëggoon nga dugal ko dama la koy jox. waaw tey euh, dem ci sëriñ du du c'est pas un péché est-ce que tey du du loolu du bàkkaar est-ce que l'islam nangu na ko. Mhm. waaw ñaan loolu xam naa ni moom moom moo ci mën a dund. kii baara baara kebe la tudd. ñi nga xam ne ñi ngi ñuy suivre ci émission RFM ak euh, Wareef ñoom mm, seen. Mm. dinañ koy dégg souvent même sunu émission xalaat sax su sunu amee benn. Ah. benn picc muy naaw nii. am des fois nga gis picc boo xam ne day naaw am téere. Mm. ni for ko. tekki ko liir ko xam du xam lan la. ñu yónnee ñu ko ñun waa xalaas pour ñu def ko xalaas dañuy jël téere boobu yónnee ko moom muy baara kebe mhm. mu tekkil ñu liggéey bi nga xam ne moom lañ defoon ci picc mi liggéey bu bon la wala liggéey bu baax bari nay façon liggéey ñuy def ci armeel yeeg ñoom seen des fois nga gis jigéen góor fase la ba pare nga ñaan baat góor mhm. ni ko may ma sama baat mu bañ nga gàddu say di ko singali di nga ba may la baat ba pare ne la demal may naa la sa baat waaye dootoo dégg alxayri mhm. genre liggéey yooyu ñuy def ci bàmmeel di ko yëkkati bopp liir di ko fa eh. dugal en général ci noonu lay demee. d'accord ba nga xam ne léegi nag kii nag mooy Baara Kebe moom la ñuy àndal ci yenn émission yi ñu xam ko baax bëgg nañ ñun suñuy jël nit di ko teg ci télé mm. mu doon nit ku wóor mm-hmm. koo xam ni du kat mm-hmm. du trian maanaam nit ku set <laughs> ñu teg ko fii te ni man euh, da ngay jël say responsabilité mm-hmm. donc sëñ Baara Kebe mii jëppal la dëkk kër papaam la la la ban lan moo fi indi du dóorkat du yooyu non non damay expliquer rek mu ne dóor yi daa bari ci dëkk bi non loolu nañ ci wax dóor bari ci dëkk bi ñëw dañoo dañoo bari ci dëkk voilà léegi nag moom laaj benn sëriñ dóorkat bu mu xam wala ñaar dinañ ci ñëw ñi ma jaxam kat léegi ñi raas di gàmm ak ñi raas dooma déggaat ma wax de voilà léegi baara kame mii baara de li la bëgg a laaj mooy euh, kër yi bari dafa xumb lool ndax euh, marbotage jigéen ñi suñ ñëwee ci yéen di leen liggéeyloo lan lañ leen di sant su góor ñi tamit di ñëwee di liggéey seen jabar yi wala seen gel yi pour takk leen lan lañ leen di sant jërëjëf baan laaj nga laaj bu amate solo li ci jiitu rek mooy am na ay question yu ma déggee ci euh, sëñ Modou mu wax ko baat am na question yu ma dégg Modou mu wax ko mhm. euh, te su ma ci tontuwul su ma demee dinañ ma ko laajaat li tax mhm. am na leneen itam lu ma dégg Aba wax ko mhm. te su ma ci waxul su ma demee dinañ ma ko laaj damay gaaw a fàtte nag moo tax il faut ñu may fàttali li Modou wax yu ma war a tontu Ah, léegi Modou dafa ne. Mhm. maanaam tey que sëy du yàlla mooy def sëy nit yi ñaari nit gisante bëggante sëy du yàlla mooy tas sëy du yàlla mooy takk sëy. waaw moom dafa toll ci ñi gëm philosophie. <laughs> philosophie. ñi gëm si philosophie. fi ñu toll di wax ne du yàlla amul ndox li tax muy wàcc tàngaay mooy mooy tàng ci suuf. jëfandikoo contacter Ousmane ba ndox mën a wàcc waaye yàlla juy wàcc ndox amut ci ñooñu philosophie yooyu yooyu yooyook yu ni mel yi ñu doon wax boo xoolee moom ci pas-pasam ak ngëm-ngëm ci ni ma ko déggee ci noonu lay waxee suñu borom subhaanahu tax taala gannaaw bi mu bindee jaam ñi li ko soxal ci jaam ñi mooy ñu jaamu ko mm-hmm. Mm-hmm. mbooleem lu jaam baal ma nee na waxul loolu donc dañ nettali ci làmmiñu borom dañ koy bàyyi mu ne waaw ca demal li mu wax waxuma ko hmm? xamoo li mu wax ay dama ni waaw ragaluma yàlla ñëwuma taxaw naa dama ragal damaa ragal yàlla ba pare. di raté ay jur waaw non dama doon def point par point a ñëw ci li nga ñëw nga ne yàlla yërëmul kenn. amul yërmande loolu nga wax mais loolu laa wax. d'accord léegi nañu ko bàyyi mu mu xuus ah, foofu nga ne yàlla mais néew ma yàlla existé wul j'ai pas fait je ne suis pas euh, philosophe buy wax du laaluma lool je suis un bon musulman. d'accord jullit laa de. waaw léegi gëm yàlla. waaw d'accord yenn yi moom duma ko wax.